بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala sunu jataay bi yal na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu incha allah ñu ngi tey ak sunu ñaareelu dars ci assiratu annabawiya sallallahu alayhi wa sallam te mooy biographie yonent yàlla muhammad tey ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala dinañ jël kafaalatuhu mooy yar gi nga xam ne yar na ko doomam boobu muy abu taalib abdul muttalib dinañ jël qissatu buhayra dinañ jël xurujuhu ila shaam wa ziwaajuhu min khadija ñetti tomb yooyu la ñuy jël tey waaye bu fekkee dañuy réviser leçon bi passé doon nañu laaj kan mooy yonent yàlla muhammad laaj boobu ñu laaj kan moo koy tontu ci yéen kan mooy yonent yàlla muhammad kenn tontooguma de wala ñu dem ba leçon bi jeex ñu doog a ñu doog a def question yi.
waaw fekk ñëpp yi jéem.
waaw incha allah kon dars bi ñuy jël tey mooy kafaalatuhu Abdul Muttalib mooy yar bi nga xam ne Abdul Muttalib yar na ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ginnaaw ba yaayam faatoo ñu yóbbu ko. Halimatu Saadiya la nekkoon mu delloosi ko yaayam yor ko daa dem ziyaara ji ay nijaayam mu faatu léegi nag responsabilité bi daa di gàllu daa di aju ci kaw maamam bu tudd Abdul Muttalib mu ne aasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baada awdatihi min bani saad ma ummihi wa indama balaga swadisa xaraja مع أمه لزيارة أخواله من بني عدي ابن نجار في يثرب وماتت أمه بالأبواء ودفن بها borom xam-xam bi nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dund na ginnaaw ba ko bani Saad delloosee ci yaayam yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge na ci bani saad mooy fami halimatu saadiya fam doon nàmpee ñooñu daal di koy delloosi ci yaayam jamono boobu ñu koy delloosi yaayam yonent baa ngi am juróom benni at na ngeen jàpp loolu bu baax yonent bi ba muy jóge ci halimatu saadiya di ñëwaat ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waxtu woowu jamono boobu yonent bi mi nga am juróom benni at bi loolu amee mu daldi ànd ak yaayam ñuy dem di ziyaare ji ay nijaayam yu bokk ci bani adi ci giiru adi ibnu najaar looloo nga ca yasrib tey mooy madinatul munawar boobu yasrib la tuddoon foofu la ay mbokk yaayam nekkoon ay nijaayam foofu lañ nekkoon yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak yaayam dem ziyaare ji leen waaye li yàlla di dogal li yàlla di def mooy yonent bi yaayam dafa faatu ca dëkk boobu tudd Abwa foofu noonu ca Yasrib ca place boobu tudd Abwa foofu mu faatoo foofu lañ ko roob foofu lañ ko denc foofu lañ ko suul bi loolu amee fa kaffalahu jadduhu abdul muttalib maamam bu ñuy woowee abdul muttalib nag léegi daal di chargé wu ci yar ko hatta balaga athamaniyata athaminata kooku yar ko ba mu am juróom ñetti at kon ci lu gàtt lu ndaw lu ngeen mën a dégg mooy ñaari weer ci biiru yaayam baayam gaañu mu am ñeenti at yaayam daa di gaañu juróom benni at tey yaayam boobu gaañu maamam daa di koy jël yar ko bi mu amee juróom ñetti at mu ne fa kafalahu jadduhu abdul mutalib maamam bu ñuy wax abdul mutalib daa di koy yar hatta balaga athaaminata ba mu am juróom ñetti at kooku tamit ndeysaan daa di faatu abdul mutalib moomu bi mu faatoo fatawalla kafalatuhu ammuhu abu talib bàyyi taxam bu tudd abu talib bokk ak baayam léegi nag moom moo ko yar kon gis ngeen nattu yi tàmbali na balaa muy juddu mooy baayam way juróom bu góor génn àdduna moo am ñeenti at yaayam faatu moo am juróom benni at maamam daa di faatu moo am juróom ñetti at baay taxam daa di koy yar bu tudd abu taalib abu taalib moomu nag ah tukki na ànd ak moom ci benn dëkk bu ñu naan Saam lan moo ànd taxoon mu ànd ak moom mooy def commerce ndax gis na ne xale bi ku yëngatu woon la bëggul woon toog ku bëggoon a liggéey la comme ñoom commerce ci la ñuy yëngatu mooy seen liggéey xale bi sàkku ànd ak moom mu daal di koy yóbbaale ba mu ko yóbbaalee benn tukki ci tukkeem yi wala ci première tukki bi mu ko yóbbaale ñu daal di wàcc ci benn caravane ci benn dëkk bu tudd Busra bi ñu wàccee ci dëkk boobu tudd Busra am benn labbe bu leen seen bu seen yonent bi ak baay taxam boobu Abdul Muttalib labbe boobu mu ngi tudd Buhayra labbe bi mu ngi tudd Buhayra moo xool yonent bi ci biir caravane bi mu ngi nekk ak góor googu tudd Abdul Muttalib Abu Talib labbe bi daal di ñëw ba ci moom moom nag labbe bi dafa yoroon xam-xamu chrétien dafa jàngoon téere yi chrétien yi ba am xam-xam lu ci sori lool xam na ca téere ba melokaanu yonent yi melokaanu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla wax na ko ci alquran yonent boobu nga xam ne yàlla moo ko bégle ne dina ñëw mujjantalu jamono ñoom nasaraan yi ak yahuud yi yàlla wax na ko ci seeni téere bible ak évangile loolu moo tax moom chrétien bi ba mu séenee waa ji xale bi ci biir mbooloo ma ah am lu mu yëg wa indama raa baadu hadihi sifaat ala dalika alxulaam ba mu gisee lenn ci ay melokaan ci xale bi waaye la ca gën a ëpp importance la mu gis mooy xaatamu nubuwa mooy kaste bi ñu tamponné diggante ñaari mbagg yi ñu bind ci ki tëj yonent yi yonent bi mujjee ñëw ki tëj bunt bi tampon boobu la yonent bi amoon ci diggante ñaari mbaggam yi la ñu kase woon daal di fay def tampon boobu mu nekk xaatamu nubuwa nee na bi mu gisee leer rek mu ñëw jege baayam bu ndaw bi abu taalib mu laaj ko ay information ci xale bi ana yaayam gaañu na ana baayam gaañu na fan ngeen bàyyee ko makka ay lan ngeen arab lu ngeen fi ursi commerce xale bi ku ko yor mu ne ko man ana ñamu sosoon ñëpp mu ne faatu nañ waa comme demee na noonu nag li ma lay conseiller mooy xale bi delloo ko dellool sa doomu mbokk mi ca dëkk ba ngeen dëkk te nga mooy te ndiku ci moom ak yahuud yi balaa ñu koy yëg di ko gis ndax xale bi fa innahu sa yakunu li hada algulaami saanun azim maa ngi lay yëgal ne xale bi day mbiram dana kawe ji ëllëg maa ngi lay yëgal ne xale bi mbiram fuñ ko natt dana ko wees maa ngi la koy yëgal ne xale bi am na lu mu nar a tekki ji ëllëg am na lu mu nar a nekki kon delloo ko depuis léegi te nga nëbb ko yahuud yi buñ ko yëg buñ ko gis ah xurujuhu ila sam wa ziwaajuhu min xadija noonu noonu la abdul mutalib abu taalib noonu la abu taalib waajale xale bi delloo ko foofu la dagg commerce am boobu taxoon mu jóg mu xam ne kon doomu mbokkam mi am na mbir mu nekk ci moom waaye ñetteelu dars bi mbokk yi mooy génnam moom yonent bi jëm saam ak denc bi mu denc soxna soosu naan Khadija wa indama balagha rasul sallallahu alayhi wa sallam xamsan wa isirina sana bi yonent bi demee nag yàlla may ko gudd fan ba mu am ñaar fukki at ak juróom yàlla dogal na ko mu génn xaraja ila saam fi tijaratin li xadija génn na nag nekk ci benn caravane di commerce ji ah waaye ba muy génn ci caravane bi kat dafa am ku ji moom caravane bi am ku muy liggéeyal ku jigéen ku tudd xadija radiyallahu anha wa ardaha xadija boole na ci caravane ba benn xale bu góor bu tudd maysara moom mi nga xam ne moom may sara yàgg gi mu yàgg ànd ak yonent bi am na lu mu gis ci moom ba mu dellusee ci Xadija mu jox ay information yu dal xelam yu ko neex yu ko bégloo kontaan loo ko ci waayam ji mu tàmbali di liggéeyal te ñu koy indil bis bu nekk ay wax yu rafet ci moom ndax moom may sara moomu muy xale bu bu nga xam ne jaamu xadija la woon yonent bi ñëw di liggéeyal xadija xadija jël may sara daal di koy boole ak yonent bi moom gis na leen ni melokaan yu rafet ci yonent bi mu dellu wax ko xadija looloo tax xadija comme géntoon na leer weer di wàcc ci néegam ba mu gisee waaju baax ji ah mu ne kii de duma raw loolu li muy tekki rek mooy góor wala jigéen soo gisee waaju baax ju ragal yàlla ju am diine ju la mën a yor boo ci mënee langaamu langaamu ci bu dee góor nag bu dee jigéen kum ci mën a doon mu ne Khadija ba mu gisee lu baax loolu ci yonent bi ah moom kat woo na ko fekk avant loolu di ñëw Xadija sëy na ñaari yoon am na ñaari borom kër nekkatul ak ñoom yonent bi moo ko ñetteel waaye tamit fekk na moo ko mag lu bare bari boobu am na ñeen fukki at yonent bi am ñaar fukki at ak juróom waaye gis na ci moom melokaan yu rafet yu ko doy yu ko bégloo yu sedd xolam ak ni mu géré alalam bi mu ñëwee léegi yàggul ak ni mu ko dimbalee ak ni bénéfice bi yokkoo ak ni mu maandoo mu xam ne kii daal wax dëgg yàlla bu ma dencee ak géntam ya mu géntoon yépp ci ay melokaan yu ñu ko doon wax yu mu doon gis ci ki ko door a takk ñetteelu yoon moo tax bi mu gisee yonent bi mu proposé ko na ko takk mooy première soxna bu yonent bi takk wa hiya awalu imraatin tazawajaha walam yanki alayha gayraha xata tufiyat nee na mooy soxna si yonent bi njëkk a takk yonent bi dencul benn soxna ku dul xadija ci dundam ba xadija faatu mu doog a am ñeneen waaye moom xadija moomu mbooleem doom yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ba mu des ibrahim xadija moo ko jur yàlla wërsëgal na ko moom yonent bi ci xadija mbooleem doomam yi ba mu des ibrahim alayhi salaam ibrahim moomu xam ngeen ne soxna su dul maariya moom mooy yaayam mooy woy juram bu jigéen moom moo jur ibrahima radiyallahu anhu wa ardaahu nee na qasim ak abdallah ak zaynab umu kalsum roqaya fatima ñooñu xadija moom mooy seen yaay alqasim wa bihi kanna kaana yu kanna nee na da ngeen ñu naan ko alqasim abal qasim léeg-léeg ngeen dégg boroom xam-xam yi naan yonent bi abal qasim ci doomam jooju lañ ko dàkkantale doomam ji du doon qasim amoon na doom ji tudd abdallah wa kaana yulaqabu bi tayyib wa tahir saa yoo déggee ñu ne yonent bi amoon na doom ji tudd tayyib wala tahir xamal ne abdallah la moom lañ doon dàkkana dàkkantale tayyib ak tahir waaye ñaar ñi ñaari xale yi faatu nañ balaa yàlla di yónni yonent bi wa qad maata qabla bi'sati rasul ñaari xale yooyu faatu nañ balaa yàlla di tànn yonent bi di ko def yonent waaye ak Zeynab Roqaya Umu Kalsum ñetti xale yu jigéen yi qad adrakna al islaam ñoom dund nañ ba yàlla yónni yonent yàlla muhammad fekke nañ lislaam waaye faatu nañ ci seen dund bàyyi ñoom ñoo njëkk a faatu seen bàyyi mooy ñetti xale yu jigéen yooyu mu des benn doomam bu jigéen bi kookoo faatu ginnaawam mooy fatima az-zahra radiyallahu anha wa ardaha fatima moo mujj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àddina lu tolloog juróom benn weer moom fatima waqat tuufiyat faatu na baada abiha ginnaaw bàppaam bi sittati ashhur ci juróom benn weer yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy sukuraat jékki-jékki na daa di woo fatima daa di koy dee Fatima daa di jooy jooy yu métti mu daa di koy woowaat daa di koy dee Fatima daa di ree bu yenent bi génne àdduna ñu denc ko ba xel yi xaw a dal saxaaba yi laaj yenent bi ne ko yow dey dafa am lu ñu jaaxal ci loo xam ne sa digganteeg sa baay la dox mu leen laajee loolu lan la ñu ne ko yow ñun dañoo seetlu ne sa baay bi mu nekkee ci sukuraat daf laa woo dee la nga jooy mu woowaat dee la nga ree loolu moo ñu jaaxal mu ne bi ma woowee di ma dee déegu njëkk gi daf ma ne day faatu ma am naqar xam ne danaa wéet ndax moom dong moo doon sama wéttal ci kaw suuf bu génnee àdduna danaa wéet ma jooy ñu ne ko ah gisaat nañ mu woola dee la nga ree mu ne waaw def maa wax ne bu génnee àdduna duma fi yàgg maa koy njëkk a fekki ma daal di kontaan xam ne sama wéetaay dana jeex bu ma fekkee sama baay dootuma wéet allahu akbar mbokk yi xoolal nit ñu ne la da ngay da ngay dee nga nga nga nga kontaan ñu ne la da ngay dem àllaaxira nga bég di ree te yaa ngi doon jooy nekk ci naqar waaye ñu ne la da ngay génn àdduna jëm àllaaxira nga ree lu ko waral mooy da nga préparé fa nga jëm looloo tax mbokk jullit yi foog ñu préparé foog ñu waaj xam ne fa ñu jëm dafa am lu ñu fa war a yóbbaale war a góorgóorlu ba buñ fay yóbbaale nañ fa yóbbaale lu ñuy reeloo wuuteeg lu ñuy naqarloo wala lu ñuy jooyloo waykat bi dane wala dat kaw mu ka yabnu aadam والناس حولك داهكا مسرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك داهكا مسرور hey yow doomu aadama bi la sa yaay di jur yaa ngi jooy nit ñaa ngi ree góorgóorul ba ëllëg bu nit ñi jooy ngay ree allahu akbar bi ngay judd di gane àdduna da ngay jooy nit ñi ñoom bég di ree ndax bisa ngi ñëw danañ lekk ceebu yàpp danañ lekk laax danañ la ngénte nit ñi ree waaye yow bi ngay judd génn ci sa yaay rek da nga doon jooy nit ñi ree ku dégg judd nga day ree bisa ngi ñëw nit ñi danañ jooy mooy bis boo génnee àdduna kon nag góorgóorlu ba ba duggee bàmmeel nga ree nga fay leen bor bi mooy bi nga ganee àdduna jooy nga bi nga génnee àdduna nga ree li yées mooy gane àdduna jooy dugg biir bàmmeel di jooy yal nañ ci yàlla musal mbokk jullit yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nii la dencee xadija mu nekk soxna su mu bëggoon lool nag soxna su mu fonkoon lool nag ndax bi xadija di dund yonent bi boole bu ko kenn moom rek ca kër ga waaye bi yonent bi xadija génnee àdduna pour ñu xam ne xadija ku réyoon ci yonent bi la at moomu yonent maa ngi tuddee amul xusn atum njàqare atum naqar la yonent bi tuddee at moomu xadija génnee àdduna yonent bi da doon toog ba ci yàgg mu ne cee xadija xam ngeen jigéen rek ak fiiraangeem Aysa ne ko dimbali ñu màgget moomu dee na bu yàgg mu ne ko ah kooku mënuma ko fàtte ndax ba ma nit ñi weddee moo ma dëggaloon ba ma nit ñi xàññee moo ma joxoon te moom dong la ma yàlla wërsëgal lu ma amul ak keneen moom dong la ma yàlla wërsëgal maam ak moom ay doom xadija ngoog ndeysaan mooy jigéen ji yàlla nuyu jibril la ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ak moom bay dem ne ko bu xadija ñëwee nga ne ko yàlla ngi koy nuyu allahu akbar yàlla moo nuyu xadija mbokk yi xadijatul kubra yonent bi saasam daan toog ba ci yàgg mu jël dara daa ne ana bilaal mu ne maa ngi ni mu ne jëlal lii mu jël ko mu ne ko demal nga jox ko diw ndax xaritu xadija la woon demal nga jox diw ndax xaritu xadija la woon kon yéen sama mbokk yi jigéen ju baax a ngoog ju tudd xadija ku ci bëgg a baax royal xadija ulaayika alladina hada allah wa bi hudaahum iqtadih keroog ba yàlla di forme yonent bi bëgg mu baax da ko ne yonent yi laa baaxal boo bëggee baax royal yonent yi waaye yéen it jigéen ñi la yàlla baaxal muy xadija ku ko ku bëgg a baax royal xadija joxe na alalam ci diine def na lépp ci diine mën-mënam kàttanam aar yonent bi défendre ko ci jamono ju mu mettee jamono ba ñépp ne du moom mu ne ko yow la jamono ba ko ñépp xañee mu jox ko munoon na ne kii mun naa ko jur munoon na ne kii duma moroomam duma maasam duma màppandoom munoon na ne kii man borom alalaa moom wala kaana la waaye lu baax a ko tax a jóg dëgg ko tax a jóg diine ko tax a jóg looloo tax moom ndaw si mu gërëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam denc ko nekk borom këram li coow li di bari bari màkk li wax ji di bari bari bari màkk xadija dafa gumba tëx lu muuma xam ne daal waaju baax yombul ku am waaju baax bu yeboo nga téye ko kon incha allah mbokk yi lii moo doon darsu tey maa ngi koy yemale fii di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu fekkee waat samedi incha allah maa ngi pare pour jël question yi ak yeneen laaj yi ngeen am incha allah ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala maa ngi leen di jéggalu bu fekkee dafa am ay njuumte wala ay dëng-dëng in aradtu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.